mbooloo mi fi teew yëpp waaye di jiital ci nuyoo bi sëriñ Basiru Mbakke moom sëriñ Xaadim Awa xam naa wax ji kàddu yu gàtt lay doon ndax seex Baara mi ma yónni daf ne ma fee ma la yónni na la wóor ne jaam la bu yónnee ci ab sangam doom la ju yónnee ci baayam waaye taalu la bu yónnee ci ab sëriñam li tax muy jaam bu yónnee ci ab sangam seex Baara ne bu ñu takkoon ak buum ci baatam daal di koy bàyyi ci mbeddi Ndakaaru yii nee na képp ko sant Mbàkke di boo ñëwee sañ nga koo for waaye boo ñëwee ba tiim buum gi siggi muy sëriñ bara ne di nga ne kii kat nan ko fi bàyyi ndax cërub sëriñ bara nee ta kii nga xamante ne nii moo tax mu tey yónnee fii nee na daf ko wóor ne tey boo doon wër sëriñ bara ba dugg ci moom boo génnee di nga jàkkaarloog sëriñ bara ndax tey ji ku duggan ci ay tànkam di nga daanu ci suuf boo nee sigét sëriñ bara dina jàkkaarloo ne maa ko daan ndax yow ku dugg ci yow danaa ko daan ndax olof dafay wax ni solo ay yére yi warum réew te penc moo dem ñëpp tàccu ne yaa rafet ku ci toppandoo aw naaru góor juum waaye ko ne ne jàkk xam ne sëriñ Baara moo la teg loxo kon sëriñ Baara nee na kaddu yi du gudd du def dara nee na teraanga jii mu yónnee kit mi ngi koy jaarale ci loxol sëriñ Abdourahmane Mbacke mais nga xamante ni sarak la nee na mi ngi koy joxe ci aw turam nee na mi ngi koy joxe ci ci ci ci ci lépp rek mi ngi koy jaarale ci moom kon kaddu yi mën naa bañ a gudd teraanga joo xamante ne nii ki la war a war tukki bu la bu la bu la bu la ki war a war tukki bu la abbee noppal na la moo tax mu jënd nag wi nekk ci biti def ko ci oto mi ngi ci biti daal di ne nan ko jox Serigne Bassirou mu doon loo xamante ne sans barkeelu la ci bis bi Serigne Baar neen daal mi ngi lay xamal ne la bis bi nga xamante ni nekk na ci ay xat xat nee na ku nekk ci ay xat-xat di nga xàmmee ñaar di nga xàmmee ku la xoj xàmmee ki xit li xàmmee ki la may nga naan waaye nee na bi mu génnee ci xat-xat yi xamee na ki ko xet li xamee na ki ko may mu naan te yow xet nga ko may nga ko mu naan kon mi ngi feddli ak doomam ci yow mi ngi feddli ak taalubeem ci yow mi ngi feddli ak ak njaamam ci yow nga doon ab sangam ndax moom mun ta ñàkk guy mbind waaw waaw waaw ndax sëriñ seexu naa mi ne mat na ci seere ndax moom mii nga daan jot jamono ju mu nekkee ci xat-xat yi kon kàddu yi moom mën naa bañ gudd ñu ngi nuyu communicateurs yi fi nekk ñëpp ndax ñoom ñoo bokk sëriñ baara te ëppale te ëppale wuñ ko ci taxawaayam gis nañ ko bu baax a baax koy sant. ñu ngi koy sant. di ko gërëm di ko sant. di ko sant. ci li def sëriñ Abdourahmane mii. ci li mu def sëriñ Abdourahmane Mbacke mii. ak ni mu ko jàppee ko jàppee. kon Modou boo demee nga moo njëkk sëriñ bi nee boo demee nga santal ko sëriñ Bara Ndiaye. nanu may teraanga ji nga xam ne mooy teraangay sëriñ Bara Ndiaye def gis teraangay sëriñ baara Ndiaye def gis ma ñëw nii. ñu koy wan Serigne Bassirou Mbacke xaar yaaw ba gaynde baara teraa ngay Serigne Baara Ndiaye def gis moo nekk nii ana Serigne Modou Dieng ñëwal Modou jërëjëf waaw kay da ngay taxaw ci wet gi waxoon waaye day taxaw nii xool ko muy wuy Modou Modou jërëjëf sama xol seet na boo demee neel Baara uh-huh. bëgg naa kontaan lii mu def sëñ Baara tax sëñ Baara dana ko fayal boppam alhamdulilah yàgg xam sëñ mun Ndiaye jaara bàyyam xam ne nii rek a doxal ban moo des bàyyam léppam